waaw ñu ngi lay delloo ziar xam nga di la di nuyu waa équipe bi yëpp di nuyu champion yi fi nekk xam nga ak sunu ay dirigeant ci mel ni ñoom maxu grand père bu combaan paa bi sam papa ñoom père rog mbalax dirigeant yëpp daal su ma limee damay juum su ma juum bi yëpp képp kuy mbër daal ku fi nekk am combat ku ci mel ni zo Jaasi Pël ñu ngi koy ñaanal ndam moom tamit Bébé Diène tamit combat bi mu jëm ñu ngi ko si ñaanal ndam lu rëy ñoom mbañik xam nga ñi am combat ci équipe yëpp daal su ma limee juum ñoom booy taawun gaa yëpp am nañ combat yàlla nañu yàlla may ndam ñu jël PRN di nuyu Medina Gueule Tapée Fass Colobane xam nga centenaire géeju Soumbédioune yëpp maa ngi leen di nuyu xam nga di nuyu waa Canal 4 waaw ñu ko teg ci loxo ñoom Baba Aba Amdi xam nga Papa Ndaw ñëpp daal cat ba cat bàyyiwuma kenn. waaw promoteurs yi moom ñu ngi waxtaan ak paa bi waaw am paa bi moom mooy moom mooy gérer côté yooyu moog staff bi quoi promoteurs yi ñu ngi koy woo chaque jour xam nga mais man wàllu entraînement yi laa gën a focus quoi ci laa nekk. waaw ñu ngi may adversaire yu bari waaw mun naa ne lim naa ko limati ko Moussa Ndoye proposé nañ ma ko xaw ma dafa bañ laa dégg xaw ma Modou Anta tamit xaw ma waaw ñaar ñooñu daal wax nañ ma leen. non làmb moom amul préférence yaakaar naa ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ waaw. man daal na doon mbër rek ñëw waaw parce ñoom ñaar su ma leen jëlee dafa am fu mu may yóbbu waaw ak ñeneen sax mais comme que ñoom ñaar dañuy waxagum ñoom ñaar laa mën a tudd waaw ku ci ñëw baax na man nekkuma ci taamu adversaire sama yoon laa nekk rek ku ci taxaw nag dañuy daje. Hmm. non déedéet man moom man dama naan demal wax ñoom ba pare waaw nit nag ku nekk xam nga sa valeur xam nga li ngay jar waaw mais man boo waxee ak mbër ba pare surtout ñii nga xam ne man maa bëgg a bëre ak ñoom kon du metti waaw man maa bëgg bëri ak ñoom di nuyu daal promoteur yi xam nga yi si nekk daal di ñaanal tam Luc Nicolaï xam nga gars bàyyi ko waaw parce que Luc Nicolaï daal bokk na ci li dundal làmb te fi mu yóbbu làmb yéene bi mu am rek mooy làmb gi ngeen mu kalee mu ñëw xam ba taxawal affiche bi toll noonu mu war a dundal làmb gars yi kontaan gars yi ko xam nga day nuru dara nag comprendre mais duñ ci sori comme ko yoon la ndax gars yi jàpp rek bàyyi ko xam nga parce que ñun làmb la ñoom gars yi bu ñu rayee làmb dinañ rey lu garaaw mooy loolu. loolu moom galaay moom liggéeyal loolu mérité loolu mais comme que wàllu yoon moo tax boo gisee gars tey ci loolu la bu ci leneen tey wala gars mais wàllu yoon moo moo demee noo xam ne xam nga tey boo dugalee lettre rek balaa président di la recevoir wala yooyu mën na mën na yàgg comprendre nga mais xam nga ñu ngi ñaan daal yoon ak yàlla mi mën a may nit liberté yàlla na ko may liberté daal dañuy jël lépp teg ko ci loxo yàlla parce que yàlla moo mën a tëj mooy tij moom la waaw. moom wax dëgg yàlla mu ngi def ay preuve si làmb waaw mbër la bu ñëpp nangul macha allah mbër la làmb ngi sunu kanam mais incha allah moom dañuy ñaan yàlla Bébé Diène bëre daan rek mook Mama Lamine taxaw. non mbër la mbër moom doone bugguma mais instant bi nii nii Bébé Diène mooy adversaire am wala Mbagnick wala ñoom booy Town wala Zo daan wala gars yi si ginnaaw champion yëpp waaw. mu ngi def ay preuve am moom am na ñeneen ñu mu war a waaw. waaw xam nga ama neex am na promoteur yu si nekk sax si lu ñu wax moom tam la waaw ngi koy wax rek xam nga comme que comme que dafa xam nga année blanche yi bëri na toog bañ a bëri waaw nañ nañu jël rek ñu grand contre petit affaire dafa war a saf fépp grand contre petit fépp la war a doon bu baax ama neex moom bëri moom plaisir la moom champion la xam nga waaw Sokh champion la am na combat bu mu nekk waaw xam nga mbër mu nekk ci combat man du ma ci sori non boo amee victoire moom Mbagnick laa koy jox. <laughs> waaw la ci gars yi fii rek. <laughs> waaw champion la nag xam nga mu ngi ci combat daal xam nga bugguma ci sori mais instant ya xam nga dafa am ñi ma war a bëreel daal. waaw hmm, internaute yooyu xam naa supporteru gars yi. Mour Anta loolu moom loolooy combat bi. waaw way Mour Anta moom ndaanaan la waaw te moom daf may neex daal waaw su sañoon nag xam nga nañ ma jël léegi ñu bëri parce que tëbu ma tëb rek nekkul benn combat laa bëre war a ñaar laaj leen. dama def samay preuve ba mu leer moo tax ma ma ñeme taxaw ne ñii nañ ma jël ñu bëri waaw loolu la rek du leneen ah làmb kay football sax nit da nga jóge kii dem affaire mu à l'extérieur à domicile moom day jóge Thiès di ñëw fii di bëri si kon kay buñ ka tegee biir Thiès day gën a neex te man Thiès dama bëri ay mbokk la ah. <laughs> doomu aadama la de te nit dafa weex de waaw weex ñun du soxlañ ko lewet comme ban góor mooy ni di wur lu yomb kon yow war nga xoolaat sa bopp amul déedéet lu naqari ngay jël pour daan ci champion yi dem nekk champion Tyson 2 keneen ak keneen bu ñëwee ñu bëre. Hmm. waaw man côté boobu yëpp gars yi ñu ngi koy gérer ah waaw wàllu lekk moom sama yaay mu ngi fi moom côté boobu moom laa jox moo koy gérer ak xam nga awa tam maa ngi koy nuyu chéri baa moom wax dëgg yàlla mu namuñu dara waaw da ciy jàpp di ñu di ñu toppatoo xam nga macha allah daal waaw affaire lekk moom ragaluñ ko mais ay protéines yooyu moom ñun xam nga dugguñu si. waaw man moom. xam man moom instant bi moom lépp laay dóor moom. waaw mais su ma amee combat nag gars yi dañ may beral loxo mais <laughs> bu amul combat moom dañ lay bàyyi nga ñëw ci rumblement xam nga di ko di koy ñàkkante waaw mais bu amee combat moom maire bi daal mooy gérer loolu moom waaw. Hmm. waaw loolu moom loolu nekkul ci man sax boo xoolee trois ans en arrière dama doon bëri trois combats mais instant bi si làmb ji la promoteur bu la munti taxawal même bu dee demi saison di la la yóbbu fin saison ba moytuwul waaw instant yi problème bi loolu quoi du ci mbëri mais ñun bu ñu sañoon tey chaque weer ñu bëri parce que ñu ngi entraîné loolu mooy suñu avantage. mais booy kii xam nga instant bi objectif bi li gars yi di wax nekkatul xam nga anaane bañ a ne balance mooy objectif bi mais benn combat sax boo amee da ngay sant waaw ñoo xam ne ñu ngi doog a dugg sax benn combat la ñu am kon bu demee noonu dus ñun daal xam nga yàlla la ñu ñaan yàlla situation yi décanté wu rek waaw xam na du ci man waaw si sunu borom la rek sunu suñu borom moom mooy tracé affaire yi ñun dañuy géewaat film bi rek xam nga ñu ngi ñaan yàlla daal xam nga affaire yi jàll waaw ba làmb ci mbër yëpp di bëre parce que mbër moom bëre moo ko jik quoi waaw ba tey loolu dafa neex man dama war a bëre gars yi barki yàlla nii nii war a jël nu war na yàlla dañ ma war a def naa samay preuve xam nga munoo jeexal say morom dañ lay jël rek yéegal la si kaw nga jaxasoog ñoom bu déggoo bàyyi loo noonu man maa ngi entraîné billaay wallaay taalaahi na nga doon mbër rek doon dama gëm ne damay bëre ak yow daan la loolu laa gëm moom lay yeewoo di ko nooyee chaque jour waaw. dama la wax champion la champion loolu moom kenn werante wu ko. mais li ma la wax rek làmb boo bëggee nekk champion xanaa nga nekk ragal di si duute wala nga am koy sóoraale mais bu boo bëggee nekk champion moom da ngay daan si champion yi par force te làmb amul lu yomb waaw amul lu yomb. Mhm. loolu koy na na ci gars yi wax rek instant bi affaire bi loolu la quoi na promoteur yi ñëw problème bi du jéen ak di yëpp taxaw na promoteur mooy problème bi ci làmb non non déedéet jéen fu mu toll nii mën naa ne làmb bu ñu bàyyee sax man mën naa demal sam bopp. comprendre nga parce que rythme bi sénégalais yi di bëgg ngay bëree mooy bërtët ngay saax saax sa combat loolu moo jeex ma ci bëree daanu maag booy sey ñëpp gis nañ comprendre nga maag booy booy sey ñëpp gis nañ ñu bëree mu demee noonu waaw kon boo ñëwaatee da ngay teey làmb jeex na loolu waaw loolu la demee ñëw loolu bu ñu ci amoon expérience moo ñun respecté wuñ suñu supporter bu ñëw di patam patamee suñu combat su ngay dajeeg sa morom mu war a bëree di la bàyyee combat bi yooyu doxul waaw man moom xam nga di man damay sant rek di gërëm di sant yi xam nga staff bi daal ak képp kuy fan si Diène nekk Sénégal Diène a ngi lay sant di la gërëm xam nga di la di di la bégee waaw ak mbaru Medina yëpp tamit maa ngi leen di bégee waaw di leen ñëpp ñoo far dërëm bi génnul gaal gi waa États-Unis ngi leen di nuyu waa France sama gars yi ñoom Abo Ibulaay xam nga Bulaal groupe bi yëpp maa ngi ni ñoom Père la Deguerre xam nga maa ngi nuyu ñëpp daal canal 4 tamit waaw fii da fees nag mais tey xam nga waaw ni mu demee la quoi waaw mais da fees del ñun ñu ngi fi di entraîner di pare suñu ay combat di woo promoteurs yi ñu ñëw xam nga jàppale ñu bu baax waaw parce que mbër yaa ngi fi daal te fii ak incha allah deux ans rek waaw écurie bëgg nañ xam nga écurie boo lim Sénégal bu nekkul pay nekk deux waaw ñu ngi ciy ñu ngi ciy xam nga ñu ngi ciy liggéey di ci sabablu waaw di nuyu képp ku jàppale Diène suma père sama coach gii tamit maa ngi koy nuyu su mel sama père xam nga waaw ñëpp daal ma kenn Sénégal yëpp maa ngi nuyu ñëpp xam nga di kontaan si yéen site bi tam ñu ngi koy suivre waaw 4 appuis ñu ngi koy suivre bu baax xam nga yaakaaru làmb la daal waaw mais nag xam nga changé leen tur bi 4 appuis moom wóorul. ñoom <laughs> Papa Kayre ñoom Maxu Ndiaye ñoom grand père xam nga di nuyu suñu coach yëpp waaw di nuyu waa écurie Soumbédioune bu baax di nuyu waa Medina Colobane Fass xam na Rebeuss waaw ñaar cooke lépp ku nekk daal Medina ñu lay nuyu waaw suñu supporters yi ñoom ñëpp ñu leen di trois fois. bëri ngeen trois daan ko benn ñu mu daan ma benn. ëbbali ñaata yoon mu daan ma benn yoon ñu ma benn waaw. ak kan ordinateur. ordinateur ñaari yoon laa ko daan waaw. caaga fay ñaari yoon waaw. franc. franc dañoo ma benn yoon lañu bëri waaw. à part franc encore Serigne Ndiaye 2. Serigne Ndiaye dañoo mu suñu bëre hmm. waaw bëri nañ mu daan mu benn ma waaw ak Sele ñaari yoon. Sele mel waaw grand ma ñu trois fois waaw. Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye benn yoon la ñu bëri ma daan ko bañ.